situation politique bi li ma ci mën a wax mooy c'est un peu euh, beaucoup de manipulation y a beaucoup de de non-dits parce que quoi qu'on puisse dire Macky après les élections a voulu faire ce qu'on appelle s'acheter un autre état de grâce dafa jënd beneen état de grâce comment dafa gagner élection yi ci condition yu leerut parce que tout le monde sait que le fichier y un problème donc museler l'opposition le jour des résultats maanaam yonni fa ay takk der ñu dem quadriller euh, opposition bi pour bañ benn forme de contestation jóge ci loolu noonu quelques jour mu supprimer le poste de premier ministre ça veut dire que xàllil na boppam autoroute pour dem ci lu ko neex pour ne pas avoir à répondre à l'Assemblée nationale parce que tey sans premier ministre kan moo yore le programme du gouvernement pour mën a ñëw assemblée nationale toog wax ak député yi donc Macky ne permet même plus au Sénégalais de demander des comptes ca fa ñuy woowee pencum ndawu réew ma muy beneen aspect beneen bi mu oote directement au dialogue beneen ba mu libéré xalifa Sall ba ca topp mu ànd ak Abdoulaye Wade ñoom ñaar ñu ne juboo nañu donc qu'est-ce qui se lan lañu nekk di di nas ci suuf lan la ñu nekk di di dill ci suuf loolu jaaxal na askanu Sénégal bi donc politiquement toujours on est dans le dans dans ñi ngi ci manipulation ñi ngi ci jaxase nax askan bi lëbëj lëbëjal askan bi et socialement rien n'a changé les mêmes jafe-jafe la ñuy dund au Sénégal dara changé wul si quotidien wu sénégalais yi nit ñaa ngi dund tartarine hôpitaux yi mënoo faju la preuve ñoom avoué nañ ne hôpitaux yi baaxul parce que indi nañ benn bateau teg ko fi pour faj nit ku dem bay indi bateau mu nekk mesure d'urgence kon reconnaître nga ne yow defoo ay effort kon reconnaître nga ne sa plateau médical baaxul njàng mi mënuma ko wax parce que njàng amu fi boo ko xoolee université bi ça va super mal école yi mooy loolu ay ba léegi ñi ngi am ay abri provisoire ba léegi professeur yi ñi ngi manqué ba léegi conditions yi mi ngi métti nga ñëw ci côté panier de la ménagère tey la gën a compliqué avec les taxes indirectes parce que bu yokkeelee étudiants yi seen ay bourse am na feneen fu mu koy jëlee ci ci ndoddu askan bi bu yokkalee salaire yu ñenn ñi am na feneen fu mu koy dindi ci ndoddu askan bi donc jafe-jafe yi tey la gën a tar tey la gën a métti réew mi dara changé wu fi. alors yaa ngi wax léegi ne sur le plan social dara changé wul euh, plateau médical également euh, cité nga ko maintenant sur le plan social précisément ak euh, ni ngeen constaté ne dara changé wul. commencé ngeen mener seen combat depuis Abdoulaye Wade en 2011 foofu la ñu le mouvement Y en a marre actuellement ak ni situation sociale bi demee yéen lan ngeen ci def pour jéem a changer ou en tout cas pour jéem a pousser les autorités publiques à changer la situation ak lan ngeen euh, prévoir ou entrevoir pour jéem euh, fexe xool naka la situation bi di améliorer woo actuellement. waaw xam ñun ñun suñu rôle rek la mun def. ñun ñun ñun amuñu prérogative bu dem changer dara wala dem dugg ci biir institution bi wax fa dara wala autre ñun ce qu'on peut c'est alerter les populations wax nit ñi ne leen ah lii mi ngi xew wala jafe-jafe bi am na ñun ñu nekk su ko appelle lekko sonore maanaam ñu jëbal ko ñu jibal ko ci kaw et et ça c'est ce que nareton n'arrêtons pas de faire loolu kese la ñu nekk di def bu euh, hôpitaux yi amulee ay médicaments ñu génn kaas ko wax ne amul amul amul amul amul alerte xoolal sénégalais yi comment ils se mobilisent yaa ngi fi doon dégg affaire machine cancer mais sénégalais yi ñoo ko kaas pour gouvernement bi àddu ci def commande mu ñëw voilà le de la société et quand je dis société je ne parle même pas de la société civile qui est organisée comme de groupes mais société rek muy askan bi jóg ci émission wax sa xalaat ci émission rajo xaas kaas wax loolu rek il faut pas le négliger c'est hyper important parce que peuple bu ñu abrutir mooy peuple bi nga xamante ne day xam ne lii du yoon mun a capat mais donte ñi ngi jóg di ko wax di ko ñaawlu di ko naqarlu di poser les question muy am ay réponses ñu mu neex leen mu naqadi leen par force à la kulli xaal ñuy répondre cela veut dire que askan bi mi ngi jouer son rôle maintenant autorités yi ñëw cuune seen cuune bopp gouvernement Macky Sall moo cuune cuune boppam ba mënuñu régler les problèmes des Sénégalais mais par rapport ak cuune boobu yéen loo leen mën def qu'est-ce que vous pouvez faire mais qu'est-ce que qu'est-ce qu'on peut faire si c'est un gouvernement qui est établi pour un pour une loolu du ñun ñooy apporter les solutions c'est à Macky bi nga xamante ne moom lañu jox responsabilité sénégalais yi votel ko entre guillemets moom mooy trouver ay solutions sur les problèmes des sénégalais ñun duñ gouvernement bi duñu ay ministre donc moom moo war a trouver les solutions la bonne équipe ou avec une baguette magique je ne sais pour régler les ñun mënuñu lu dul wax ko ak kaas ko ak ne lii yoon lii du yoon lii du yoon TER par exemple inauguré na ko te ba léegi fonctionnelul ministre des infrastructures génnaat na wax ne nañ ko may à temps parce que parewul donc sénégalais yi dootuñu def pourquoi nga inauguré loo xam ne parewul inauguré loo xamante ne yow mënoo ko mettre au service des populations yow xam nga ne yow lii parewul yow lii baaxul amul donc yooyu c'est juste pour donner l'exemple que ne réew mi li fiy dox ci homme politique yi mooy respecté wuñu population yi donc lu tax respecté wuñu nag ñun ci loolu la ñu nekk di kaas boobu ba léegi mais du ñun ñooy dem saafara ko parce que nous ne sommes pas ministres nous ne pas euh, directeur de société wala wala député. d'accord on est d'accord avec ça mais euh, Abdoulaye Wade euh, pardon Macky Sall bi mu ko euh, élire jot na toog ak yéen waxtaan ak yéen pour euh, inviter leen à ce que ngeen liggéey ensemble yéen apparemment quand vous menez vos combats dañuy gis ne certainement am ngeen ay. idées yoo xam ne bu ko euh, autorités yi utiliser wala ñu exploiter ko war nañu mën a changer les choses pourquoi bi mu leen woowee pour ngeen liggéeyandoo ensemble yéen vous n'avez pas répondu favorablement. waaw ñam woowoon pour ñu dem liggéey ana ñu tey écarté wu leen dàqu leen parce que soxlawu leen en réalité loolu du intention pour liggéey ak ñun intention mooy casser cette dynamique ñun on l'a compris très tôt ana Souleymane Jules Diop da nga ko déggati mu def la mu doon def ana Latif Coulibaly da nga ko déggati. ana Youssou Ndour da nga ko déggati ñeneen ak ñeneen donc lu problème il faut comprendre que l'homme politique il est dans ses politique ñun Macky Sall bu ñu wooyee nañu kaale ñu liggéey ñun gëm nañu xam nañ ne Macky Sall waxu waxu ko parce que dafa bëgg Sénégal daf ñu wax kaale ñu liggéey pour casser Y pour empêcher ñu nekk di continuer suñu combat bi ñu nekk di mener mais ñun on l'a compris parce que tey jii est-ce que dara gënul baadoo la yaanamaar woote askanu Sénégal bi yëpp génn ñëw wuy si ñu pare élection man caat kilifa Fadel Simon ñun ñu dem am ay post ci gouvernement bi toog ña doon génn ñoom ku nekk toogaat dundaat say jafe-jafe mais loolu c'est de l'ingratitude loolu c'est pas de la reconnaissance loolu c'est de la malhonnêteté c'est de la malhonnêteté ñun loolu duñ ko def man artiste la rap laay def keneen ci biir mouvement bi leneen lay def sama musique laay continuer di def wax nañ ko li ñuy def société civile activisme du liggéey activisme du liggéey activisme c'est un don de soi pour sa patrie ñun suñu liggéey mooy par exemple man artiste la maa ngi dem ay tournée di dem di liggéey génn sama album di def samay yëf bu ma réew mi soxla ma teg sama liggéey ñëw comme Sadio Mané tey ma nga Liverpool foofoo koy fay fa lay liggéey mais équipe nationale woote na fii ak semaine prochaine di nga ko fi gis mu ñëw loolu mooy activisme du liggéey kenn mënu ci am 100 francs activisme ku ci am 100 mooy tu es corrompu mooy yow liggéeyoo ku ci am fukki dërëm mooy yow tu es un corrompu parce que du pour looy liggéey loolu looy def la sa alal nga ciy def ak sa temps ak sa énergie ak sa gëm-gëm donc politique tamit du liggéey képp ku def politique liggéey sàcc nga parce que politique du liggéey da ngay am métier ngay exercer politique ñu jox la ay responsabilité bu weesoo la ngay woote yow ak sa domaine ba nga xam leneen loo ci def lu ne yow tappalekat nga parce que Sénégal boo xoolee la plupart de du temps aujourd'hui il a de nouveaux riches et ces nouveaux riches là ils n'ont pas de métier ils font de la politique donc nan nga mën a def politique di am di am alal c'est parce que kon juboo c'est parce que kon juboo parce que politique du pour am alal politique c'est pour changer les problèmes des populations pour indi saafara ak coppite ci nekkinu askan bi loolu moom moo ko waral donc ñun Macky bi mu ñu woowee on lui a bëgguñu bokk ci sa gouvernement bàyyi ñu ñun ñu continuer def li ñuy def jox ñu suñu kayit ñun ñu ñun ñu am suñu liberté ñun liggéey ci suñu ay propre projet mais ñëw joindre ce gouvernement rejoindre ce gouvernement ça n'a jamais été notre objectif te bëgguñu ko d'accord en un moment donné jotoon nañu fi wax ne euh, mouvement Y'en a marre ou en tout cas ñu bëri ci société civile bi dafa am yenn groupe yoo xam ne ñoo leen di financer leen bi ngeen yëgee loolu quelle a été votre réaction ak lan yan yan éclairage ngay apporté par rapport ak accusation yooyu waaw mais accusation man parce que les gens ils parlent sans sans duñu am source en commençant par journalistes yi yu bëri ils ne font pas des enquêtes duñu dem gëstu dañuy dégg teel ñu ne damm na lu bëri fii li ñu apporté ci espace public bi waxu baa jaaxle la mais ñun on l'a dit à Macky Sall en bi mu jëlee avril 2012 non ma avril mai mai 2012 bi ñu toogee ak moom dañ ko ne jox ñu ñun suñu kayit ñu moom suñu bopp parce que Ablaye Wade nangu ñu woon jox kayit boo ñu joxee kayit ñun on peut aller trouver ce qu'on appelle des bailleurs qui finance des projets ñun ñu déposer am projet un projet bu jub bu clair ut ci financement dem doxal projet boobu noonu joxuñu autorisation bi joxuñu kayit bi joxuñu kayit bi joxuñu kayit bi bañ ne suba la fi Obama di ñëw Obama woote ne daf ñu bëgg a rencontrer mu xam ne bu ñu Obama rencontrer dinañu laaj la mooy suñu ay jafe-jafe te dinañ ko wax ne ko amuñu kayit alors que Sénégal mi ngi woote ne dafa am démocratie si le eh, commissaire bi woote ne nu yéen seen kayit bi yàgg na fi ah, ma leen di woo ba léegi jotuma ci kenn nangam nangam ñoo leen ngeen jël si ko quelle foutaise ñu dem jëli kayit bi bi ñu jëli kayit bi ñu commencé di doxal suñu ay projet est-ce que da ñu ne bailleur X wala bailleur Z porté na plainte Y'en a marre parce ko dégg ah kon léegi yoonu kan moo nekk ci man caat ma dem ci Pape Sidi ne ko Pape Sidi jox ma dama am projet bi 100 francs moo koy def mu ne ma am 100 francs ma ngi nii demal def projet bi yow déggoo ma ma am coow ak Pape Sidi nga ne ma lu tax Pape di yow wax ak man wala man lan laa jeex ak Pape Sidi il faut que les gens arrêtent il faut que les gens arrêtent ñun amuñu fonction publique amuñu responsabilité publique l'État du Sénégal yónni na sax OFNAC mu ñëw si ñun te ñun amuñu fonction publique OFNAC ñëw na enquête ci ñun. gelé sax suñu ay compte privé personnel enquête ci ñun jox ñu note nañu vous êtes blanc comme neige awma lu ma leen reproché set ngeen wecc même moment bi muy génne rapport bi bi incriminé directeur poste directeur kudd directeur port moment boobu ñun la ñuy jox kayit ne nañu yéen defu leen dara na fi ngom kayita ñu dem wuy fii ci tali bi euh, enquête bi non loolu la day non parce que dañuy def enquête ay email sax dañ ñu ko laaj ñu jox leen ko maintenant état du Sénégal a compris que Y en jëlul xaalis yorewul xaalis que da liggéey ak d'autres partenaires yoo xam ne ñoom ñoom ñooy le partenaire financier technique et financier ñun on ne faisait que accomplir ci suuf ñun par exemple bu ma bu ñu amee un projet boo xamante ni ci développement la jëm pour ji ay garab saxal ay garab ñun amuñu xaalis bi ñu demee saxal ay garab mais yaay dem jël xaalis ci bailleur mu jox la nga dem jënd yow ay garab jox ñu ñun ñu dem samp ñun loolu rek lañ ci doon def mais parce que parce que parce que il faut comprendre que ñun amuñu woon kayit benn deuxièmement amuñu suñu organisation parewul woon pour mën a jot ay xaalis téere ko boppam di ko géral boppam munul nekk te ñun duñu duñu ay luubalkat dem ci nit bi ne ko jox ñu rek ñun ñu tee dugal suñu ay poche moo tax ñu def ko mu jaar ci ay yoon yu yu yu leer ut un ñoo xam ne loolu moom mooy seen liggéey ku ci mel ne inda gis ngeen bi état bi téye tëj nangu seen seen seen seen seen permis de travail fii ci Sénégal pourquoi parce que ñooñu ñoom ñooy ONG bi nga xamante ne nii moom mooy le defe naa mooy seul ONG bu établir en Afrique QGM nekk en Afrique léppam nekk en Afrique ñu dem di liggéey ak ñoom ñoom ñu dem uti financement dugal seen ay kees ñoom. ñoom seen ay caisse ñoom ñuy rendre compte bailleur ba ñun nag ñu dem liggéey ci terrain parce que ñun toujours volontariat lañ mus a def donc loolu la moo ci problème